donc ñu ngi leen di sant di leen gërëm yéen waa waa média yi ñëw te yoon doon fekkee euh, tirage au sort bi nga xam ne moom la ñu doon def tey euh, tirage au sort bi moom la euh, arrêté du ministre de l'intérieur retenir pour ni nga xam ne moom la ñu war a jàlle ci dépôt candidature yi te ni nga fa war a jàlle loolu moom mooy conditionné na nga war a jàlle aussi ci contrôle parrainage donc bi yoon dañoo jàpp ne Euh, pour ñëpp tolloo amul kuy njëkk di buuxante wala yooyu demee noonu parce que bu njëkk ba ordre d'arrivée moom moo doon déterminer yow na nga war a euh, jàlle ci euh, dépôt des candidatures bi mais loolu dañu jàpp ne dafa daan indi ay jafe-jafe parce que ku ci nekk dafay nekk bëgg a nekk premier parce que da nga ba da ngay bañ yow ñu contrôler say liste mu am ay doublon donc ñëpp bëgg ñëw nekk premier parce que boo nekkee premier ke kenn du la contrôler doublon extérieur parce que doublon extérieur yi moom dafay xañ ñu bari maanaam euh, comment dirais-je que sa liste mat donc loolu moo tax ñëpp a bëggoon a ñëw nekk premier léegi nag ñu ne loolu pour éviter ko li gën a euh, gën a euh, yombal yëf yi mooy ñu def ko tirage au donc loolu moo tax ministre de l'intérieur jël arrêté parce que moom nag moo am sañ-sañu xool commission bi naka lay fonctionner parce que loi électorale bi moo ko ko wax alors donc mu jël arrêté ñu woo leen expliquer leen ne leen Euh, bi yoon ordre bi bu ñu tirage au sort moo koy réglé bër démb bët ki démb ne leen nag tey bisub tey euh, alxames ci 11h la ñuy def tirage au sort bi loolu moo doon solos suñu toggaay fii tey bi ñoom ñi ñëwee ñaar fukk ak juróom mandataire parti ñoo ñëw bi ñu ñëwee fekk nañ fi Sénat toog ñu am ñeenti représentant société civile toog am ñeenti représentant CNRA toog ak maintenant commission bi nga xam ne mooy réceptionné ñu décrire leen avant ñuy commencer affaire bi ne leen nii lañ koy demee sur sept points won leen ne leen tirage au sort bi nii lañ ko jàppee nii lay demee bi ñu demee ba déroulé ba yegg ca ca pandaw ba mooy tirage au sort bi ñu woo société civile ne leen yéen yéen a ñëw tiire bu ngeen tiiree yenn Sénat mooy liir ca kaw ki ñu tiire kan la ñu topp ko noonu topp ko noonu ba yëf ya jeex vingt cinq yi ñu tiré leen bi ñu leen tiré ba pare ñu defar procès verbal boo xam ne moo constaté tirage bi nga xam ne def nañ ko euh, ñu koy rafetlu nag ndax wax dëgg yàlla ñi nga xam ne ñoo fi toogoon yëpp amul kenn ku ñoom ku ŋàññi tirage bi xanaa rafetlu euh, li nga xam ne moom la ñu décidé euh, pour mu nekk loo xam ne moom mooy nekk base u dépôt des candidatures yi léegi am na yenn mandataires yu wax ni am na déjà ay coalition yu déposé seen parrain te normalement dañu waroon xaar ba ci dépôt candidature ñu boole lépp xayma loolu lan tontu ngeen ciy am. waaw loolu moom yomb na tontu parce que lu nekk ci loi moom euh, dafa euh, tontu bi loi bi ci boppam mooy tontu parce que loi bi moo ne article 149 L 149 du code électoral moo wax ne nit ki coalition de parti bi buy ñëw di déposé notification. kooku coalition bi moo ko moom ak entité indépendante ñooñu du ñu xaar bésu dépôt des candidatures pour ñëw soog a ñëw dañu war a ñëw déposer seen notification de de titre de coalition mooy wax coalition bi nu mu tudd ñu mentionné ko xam ne coalition bii di ñëw nii la tudd mais foofu yemul foofu loi bi dafa ne bu dee buy def loolu dafa war a accompagner dépôt boobu ak liste parrainage am kooku loi bi moo ko tax moo ko wax man tontuwuma loi bi moo tontu article L donc ñu ñàkk koo def mooy violer loi bi comme ni ma ko waxee tout à l'heure boobu ñoom ñi ngi toog mandataire ma ne ñàkk def loolu mooy violer la xanaa nag du ñu demander directeur général des élections bi yor exi enfin organisation élection ñu ne ko violer loi leneen par rapport à fichier bi ñenn ñi am nañ euh, ñi nga xam ne ñoo ragal ni sax euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo njëkk a déposé ñu ñu ñu njëkkee leen considéré mooy bu ñuy wàññi parrainage yi ñu njëkk utiliser li nga euh, ñu waaw loolu aussi xam nga wax la rek wax la waaye li nga xam ne moom la ñu jàpp te loolu nga xam ne moom mooy doxi doxin bi loolu dañ ko lañ leen ko tegal bien avant cérémonie bi parce que dama leen a woo fii ma exposer leen logiciel bi nga xam ne mooy traité contrôle yi naka lay demee ñoom ñëpp ma déglu la pendant une journée ñu toog ñu expliquente mais biñ leen ko waxee booba day lii nga wax ni génnu fa woon parce que procédure bi procédure bu simple la boo indee say parrainage ci clé nga koy def ak document fisique clé bi dañ koy jël sele ko boo ñëwaatee di déposé dossier bi ñu yëkkatiwaat jox la ko ñu vérifier ba ñu xam ne lii nga fi déposé woon ñu soog ko euh, nangu sa dépôt de candidature bu contrôle ba ñëwee aussi contrôle bi ñuy def ci ordre de dépôt bi nga xam ne tirage au sort bi moom la indi ci loolu rek lañ koy mën a def bañ nañ ko ba de ñoom seen informaticien day toog parce que loi bi permettre nañu leen ñoom bu ñuy ñëw seen information day day mun nañ ko indaale. bu ñu dugalee clé bi day def les vérifications ñi ngi koy def ci yi la jiitu mais mënuñu koo def ci leneen te loolu lu vérif lu lu lu yomb a vérifier la. su nit ki ñëwul mën na position na changer. waaw bu ñu bu ordre bi daal mooy ordre bi nga war a jàllee pour déposer say dossier léegi nag bu dee yow da ngaa ñëw wala ñu woo la ci ar ci ci moment yi nga war a ñëw par exemple nga nekk sixième. ñu ne sixième da nga war a ñëw à passer à telle heure à onze heures gisuñu la texte réglementaire bi dafa wax ne bu boobaa dañ lay delloo ca mujjantalu liste ba donc bu dee par exemple suba démarré nañu kenn ci ñi nga xam ne woo nañ leen ñëwuñu dañ koy yóbbu vingt sixième place parce que vingt cinq ñoo déposé noonu lay demee